الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه wa ahli tariqati mbokki jullit yi gannaaw bañu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ci ay ñoñam ak i saxaabaam dellu si neen fas yéene continuer ak yéen yàlla luut bokk yi gis nañu ne yonent yàlla luut alayhi doomu mbokk suñu maam ibrahim la mu gàddaayoon ànd ak moom ñu jóge ci dëkk bu ñuy wax xaraan ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax misra boobu lañ leen ca waxoon moo di ne suñu maam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lóot àndoon ci ak baayam di Azara àndoon ci ak soxnaam di Saarata wax na nu ne tukki boobu la waraloon tukki ba moo di ardu Filistin ñàkk gu rëy dafa amoon bekkoor bu rëy am fa looloo taxoon ñu gàddaay dem Égypte ba ñu demee itam buur ba may na leen fa gàtt yu bari ci ay xare ki bëy ki lu ne waaye alal jooju suñu maam Ibrahim am na ci cër bu bari waaye itam yonent yàlla Luut am na ci itam cër bu bari kenn ku ci nekk jël nga say sàmm ñu lay sàmmal jur waaw waaye dem na ba sàmm yi ci seen bopp histoire di am ci seen diggante ndax e, jur gu bari gi dem na ba jaxasoo di am ba xuloo di ci am looloo taxoon ñu ni suñu maam Ibrahim tànnloo yonent yàlla Luut ne ko seetal dëkk bu la neex nga tànn ko muy sa dëkkuwaay ci la yonent yàlla Lóot tànn dëkk boobu ñuy wax ordon mu di Jordanie am na ñu ne loolu mooy sabab bi am ñu ne déedéet yàlla rek moo ko jël yebal ko ci dëkk boobu ndax dëkk la bu nga xamante ni ay kàccoor lanu e, ndax dañu aada woo def ak caay-caay bu nga xamante ni ñoom rek ñoo ko mës a def ci kaw suuf mu di ak góor jigéen moo tax wa kaana ahlu madinati sadum min afjari nnaasi wa aswaihim sulukan yaqtacuuna turuq lissalb wa yatuuna fi naadihim almunkar wala yatanaahawna an an munkarin faaluuhu ñu ne dëkk bii di Sadum li taxoon ñu yebal fa yonent yàlla lu du dara lu dul mbon googu ñu nekkee woon ñu ne itam yonent yàlla luut woo na leen daa luutun qawmahu ila al imaani billah wa xawafahum aadabahu wa xathahum ala tarki ma fihi min almaasi walmunkaraat wa qaala lahum inni rasulullahi ilaykum amin innakum qad tajaawaztum alxadda bi irtikaabi hadihi almaasiya lut ne leen yéen sama nit maa ngi leen di woo ci ngeen gëm yàlla maa ngi leen di ragalloo di leen moytandikuloo mbugalam ndax mbugalam metti na te tar na mu ñaax leen ci ñu bàyyi moy ak lépp lu nga xamante ni diine sib na ko bëgg ko mu wax leen ne leen mankat kat yenent yàlla laa bu yàlla yónni ci yéen te wat na ci yàlla ne man ku wóor laa li ma leen wax dara ci nar amu ci lépp dëgg la yéen kat aw nit ngeen wante jéggi ngeen dayo ci toggoo ñaawteef gu tumurange ndax ñaawteef bii di ak ngóor jigéen yéen rekk yéen ko mas a def ci ko suuf walakin al qawm badala an yastajibu li nabiyihim luut haddaduuhu qaa'iliin in lam takfu an tawbixina fa sa nuxrijuka min dina wante waa kër luut yi sans autant ñu dégg lim leen wax wala ñu déglu ko wala ñu sant ko gërëm ko ci génnee gim leen di génnee ci lëndamu kéeféer ak mooy jëme leen ci leeru ngëm yàlla ak topp ko ñoom de loolu lépp defuñu ko lu dul ne dañ ko wax ne ko soo bàyyiwul yëjj bi nga ñuy yëjj ak xas yi nga ñuy xas danañu la génnee réew mi luut na leen waat naa ci yàlla ne li ngeen def bëgguma ko te képp ko baax itam bëggu ko loolu la yàlla wax ni këddabat qawmu luutinin mursalin is qaala lahum axuuhu luut alaa tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuuna azzukraana min alalamin wa tazaruuna ma xalaqa lakum min rabbikum min azwaajikum bal antum qawmun aadun qaalu la in lam tantahi yaa luutu la takunanna min almuxrajin qaal inni la amalikum min alqaalin loolu la alquran nettali alquran nee na waa kër lóot ñoom de wet dina nu yonent yàlla lóot ba mu leen waxee ne leen xanaa du ngeen ragal yàlla yàlla may yónni te ku wóor la ragal leen seen boroom te topp ko wooti woo gii ma leen di woo laaju leen ci benn pay lu dul ne dama ci yaakaar rek payu yàlla ndax yàlla ma diggal ma wax ak yéen yéen ndax da ngeen di bàyyi jigéen ñu sell ñi jigéen ñu baax ñi te taaru ndax dangeen leen di teg ni yàkk bu naqari di sa yëg góor te loolu ñaaw na ñu ne ko boo bàyyiwul li ngay def yow lóot danañu la génnee waaye bu fekkonte ne sax ngóor jigéen googu rekk ca la ñu yem waaw waaye yemuñu ca ndax mbonte googu yóbbu na leen ci ñu toggawaat yeneen xeetu mbonte moo tax wa bi jaanibi jarimati liwaat hunaka jaraim uxra kaanu yaqtarifunaha dalika annahum kaanu yatuuna alqabaiha alaaniya fi andiyatihim wa yaqtauuna alturuq ala almusaafirin fa yaslabuuna fa yaslibuuna amwaalahum summa yactaduuna alayhim bilfaaxisha hadihi alfawaaxish istankaraha luutun min qawmihi wa xadarahum min ciqaabillahi alayha walakin alqawma tamarraduu wastakbaruu wa qaaluu liluut in kunta saadiqan fi ma tuhaddidunaa bihi min alcadaab fa ajjil watinaa bihi ñu ne ñoom daan nanu toggoo yeneen xeeti mooy ndax daan nanu moy ci mbedd mi ñépp di ci teg seen bët daan nanu itam nekk ay agresseur ku leen romb ci mbedd mi ñu nangu sa alal rey la wala ñu saay-saay la nee na itam lu taxaw na di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam soo mënee wàccee mbugal nga wàccee waaw moom la alquran wax ne wa luutan iz qaala li qawmihi innakum la ta'tuuna alfaaxisha waaw innakum la ta'tuuna alfaaxishata ma sabaqahum biha min axadin min alaalamin a innakum la ta'tuuna alrijaala wa taqta'uuna alsabila wa ta'tuuna fi naadikum almunkar fama kaana jawaabu qawmihi illa an qaalu itina bi cadaabillahi in kunta min alsaadiqin wante yonent yàlla loot comme niñ leen ko waxee woon ñaan na boroomam gannaaw ba aw nitam sàkkoo mbugal ma ndax ñoom dañu am yërmande ci seen waxeet waaw duñ leen ñaanal alkande loolul ba sabab ba dafa jóge ci ñoom yonent yàlla loot alayhi salaam ñaan na ci waxtaan wi weesu waxoon nen ne yàlla yebal na ay malaaka malaaka yooyu siit sidna jibril alayhi salaam moo leen jiite comme niñ leen ko waxee woon waaw ñu jaar nag ci suñu maam ibrahima alayhi salaam fekkoon ne itam ñu ngi ko doon wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkoon ne booba ñoom ñaar ñépp ay màggat lañu waaye loolu kéemtaanu yàlla la waaw loolu alquran wax ne wala ma jaat rusuluna ibrahima bil bushra qaalu inna muhliku ahli hadihi alqarya inna ahlaha kaanu zalimin qaala inna fiha luutan qaalu naxnu aclamu bi man fiha waaw lanu najiyannahu wa ahlahu illa imraatahu kaanat min alxaabirin waaw suñu maam Ibrahim bi gan ñi ñëwee ganale na leen waaye nag la mu ca bëggoon amu ko ndax dafa foogoon ne rek ay nit lañu waaw mu reyal leen yëg mich wi ko ba mu rafet tegal leen waaye lekkuñu waaw waaye nag yàlla fay na ko yéene ba lañuy wax naan eh, yàlla moom ci yéene rek lay faye ba mu reyee am yéene teral ganam la ko yàlla fay yéeneem donte sax gan ña lekkuñu la mu leen terale eh, gis nanu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am na ñu wax ne soxna sama moo dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn màndarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi de xamee ne yonent yàlla Luut am na ay gan màndarga bi moo di soxna si dafa komploog waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Luut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla lóot jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu selle nii gan ñu taaroo nii gën ñu yiwee ni ñëw seetsi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu ma gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nañu seen jikko yàq nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg seytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum sheytaanu amalahum seytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c'est fini waa kër Luut yi àggoon nañu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Luut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax moo leen yaral boppam ne leen ñii kat samay doom lanu waaw haulaai banaati hunna atharu lakum ñii samay doom leen te ñoo gën a yey ci yéen góor ñi ngeen jëm ndax góor du sëy ak góor yàlla dafa bind góor pour jigéen mu bind jigéen pour góor waaw yàlla bindul jigéen pour jigéen déedéet dafa bind jigéen pour góor bindul itam góor pour góor dafa bind góor pour jigéen mu ne kon nag samay doom a ngi nii su ngeen ci bëggee soxna ma may leen waaw bu ngeen indee ñeenteeg tranche rek ma jox leen wante nag li ngeen bëgg ñaaw na kaashafa luutun duyufahu bil xatari al kaashafa luutun duyufahu bilxatari almuxdiq bihim wa qaala lahu law anna wujudakum maci yaziduni quwatan astaticu biha an uqaawima haulaai annaas la facaltu difaacan cankum walaw anna cindi min alansaar walaqaarib jamaacatun aqwiyaa alja'u ilayhim lastacantu bihim calaa ximaayatikum walakin laa xiilate lii bi muqawamatikum li difaa'i ankum lut gestu ndax jaaxle daal di wax ak ganam yi toog ne leen ah wallahi su fekkonte ne mën ngeen ma dimbali ci waa dëkk bi ba ñu bañ a dugg si ndax samay noonu leen te dañ ma bëgg a gàcceel kon dama jël su ma mënoon a am itam ñu ma dimbali kon jël su ma amoon itam ay mbokki jege ñaale yu am kattan yu ma mën a dimbali ba ñu bañ a ñëw kon de dana sàkku ndimbal ci ñoom pour wattu leen aar leen ndax ñii kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu lu dul ñëw sa yëg yéen te loolu ñaaw na te kenn rek laa waaw te kat ñaari man kenn te ñett lu bari man nag amatuma pexe pour défendre leen loolu la alquran wax ne wala ma jaat rusuluna luutan si abihim wa daaqa bihim daran wa qaala hada yawmun asib wa jaahu qawmuhu yuhracuuna ilayhi wa min qablu kaanu yacmaluuna sayi'aat qaala yaa qawmu haulaai banaati hunna atharu lakum fattaqu llaha wala taxzuni wala taxzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid qaalu laqad calimta maa lana fi banaatika min xaq wa innaka la taclamu maa nurid qaala law anna lii bikum quwa aw aawi ila ruknin shadid ñu ni yonent yàlla luut alayhi salaam jaaxle na ne amatuma benn pexe waaw mu ne ak neexoon ay waay waay waay ak a neexoon eh, ma am doole juma leen défendre le ba kenn bañ a agsi ci yéen waaw ah xanaa kay ma faf rekk weeru ci yàlla ndax kuy wéeru day seeti gannaaw boroom dayo kon nag dana wéeru ci sama boroom waaw wéeru boobu nag la tuddee aw awi ila ruknin shadid te moo di moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci firi aaya boobu la wax na ni euh, Buxari moom moo nettali xadis boobu le moo ko solo mu ne yonente bi sallallahu alayhi sallam wax na ne yaxfiru llahu lil luut innahu kaana la yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu di yéemu ci aaya bi te mooy law anna li bikum quwwa aw aawi ila ruknin shadid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ci yéemu ba wax ne yal na yàlla yërëm sama mbokk ma lóot yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal moom day jaaxle woon na ba wax ne waaw ma wéeru danaa aka aka neex mu ne yonent yàlla lóot jaaxle woon na ba wax ne wala ma wéeru boog nee na ca pied bu dëgër ba nee na te pied bu dëgër boobu mu wax du kenn ku dul boroomam du kenn ku dul yàlla mi ko bind moo tax ba mu jaaxle dafa def tawakkul ala kër lu ci yàlla bàyyi koy mbir ne kon nag mbir maa ngoog man daal xamatuma ci dara lu dul rekk ma wéeru ci yàlla sàkku ci moom ndimbal foofu la ko sayidna jibril alayhi salaam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lanu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk loolu mënul nekk bàyyi leen rekk ñu agsi wax nanu ne bi nga xamante ni eh, mbir mi tar na loolu ci yonent yàlla lóot ci malaaka yi wax ko loolu xelam dal na mu deltuwaat gannaaw xam ne ndimbalu yàlla dikk na ñu ne ko yàlla ñu yónni pour ñu alexi waa dëkk bi moo tax ñu ne bi nga xamante ni waa dëkk bi dugg nañ ci kër gi Seydina Jibril silmaxaloon la leen ndax dafa am lu mu jëfandikoo ñoom ñépp ñu daldi silmaxa ci saasi kenn gisatul waaw moom la subhanahu wa taala wax ni wa laqad raawaduuhu an dayfihi fa tamasna ayunahum wa nuzur yàlla nee na ba ñu sàkkoo ganam ña pour jéem a sëy ñoom te gan ñi di góor comme ñoom waaw wala boo gën ña di malaaka waaye yor melokaanu góor nee na keroog ba ñu dugg séede ñun yàlla yóbbu nañu seenu gis ba ñu mujj di ay silmaxa waaw moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ay silmaxa gisatuñu dara ah loolu di mbugal bu nga xamante ni su doon ne ñam la ñu ne hors la waaw su doon ne ñam bu ñuy lekk la moo xam añ la walla reer ñu ne hors la waaw yàlla dogal ñu dugg si ci biir kër gi gisatuñu dara waaw malaaka yi ne ko yow lóot ne ko ñii de lañ yastatiru an yu'duuka fi nafsik wala an yafdaxuuka fiina fasir ant wa ahluka laylan waxruj bihim min hadihi alqarya wala yaltafit axadukum xalfa likay laa yara hawla alcadaabi fa yusaabu minhu bashar amma imraatuka allati xaanatka fala takun min alxaarijina macak id la budda an yusibaha maa asaaba qawmuha min al halaak wa inna mawcida halaakihim huwa subx wa huwa mawcidun qarib ñu ne ko yow Luut ñii duñ la mën a lor mukk sa xel dal dañu bëgg su guddee ñi nga am ñépp ci njaboot mooy ñi la gëm na nga ànd ak ñoom génn dëkk bi waaye su ngeen dee dem nag bu kenn gestu ndax kat su ngeen dee génn bu mbugal mi di wàcc su kenn gestoo mën naa gis lu ko rak lu ko lu ko tiitloo waaw tiit nag léeg-léeg mu rey nit mu ne ko kon nag dem leen te bu leen gestu waaw ndax gestu bi mën naa indi beneen musiba mu ne ko nag sa soxna nag daf la wor waaw ah, dafay maslaak yow rek waaye mook ñëlee ànd waaw léeg nga am njaboot gu mel noonu njaboot gu nga xam ne euh, sa noon lay nekk mën nay maslaak yow waaye toujours ci lu la lor rekk lay dëkk waaw léeg-léeg nga am doom mu mel noonu léeg-léeg nga am soxna mu mel noonu waaw moo tax mu ni ko kon nag sa soxna sa noon la kon nag soo dee génn bu mu génn ànd ak yow ndax li dal yéeféer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéeféer la ne ñoom mu ne ko nag dat bi waaw heure leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko axakay moo tax walla ma xal al adabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jacala caaliya alqaryati allati kaana yaciishu biha qawmu luut saafilaha wa amtara calayhim fi atnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu calayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum wa cadaabu llahi laysa bi bacidin an alzaalimiin alfaasiqiin mi ne bi nga xamante ne mbugal mi mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na walla boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla jibril yonent yàlla jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda dil arshi makin mutain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ne ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda dil arshi makiin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu siqi waa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya sabi ganaar ya ak ŋeexali fas ya kon dëkk ba jege woon na lool asamaan ak ni asamaan sore waaye noonu la ko Seydina Jibril ne doññit dëkk bi ci laafam yëkkati ko ba mu ko yëkkatee ba ca kaw noonu rek la ko wëlbatee juutal ko waaw mel ni ndab boo yëkkati rek dëpp ko noonu la waa dëkk bi faatoo waaye lu ko jiitu nag dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer ba ñu sonn waaw xeer ngandi xeeb di jóge ci kaw asamaan si di dal ci seeni kaw waaw nit ñi di daw xeer yi di màbb kër yi ñu sonn lool waaw dem ba jikki rek Seydina Jibril jël nag dëkk bi ne ko doññet ci kàttanam googule ak doole ji ko yàlla jox yëkkati dëkk ba ba mu jege asamaan mu daldi koy dëpp ci suuf si waaw moo tax ñu ne dëkk boobu leen noonu leen yàlla alage ñoom ñépp ñu daldi faatu kenn desatul ci dëkk ba lu dul waa kër Lóot ñe ko ci gëmoon yore woon pas-pas bu sell gëm ko te topp ko moo tax moom la subhanahu wa taala wax ne yaa luut yaa luutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum axadun illa imraatuk innahu musibuha ma asaabahum inna mawcidahum alsubx alaysa alsubx bi qarib fa lama jaa amruna jacalna calayha saafilaha wa amtarna calayha xijaaratan min sijilin mandud musawamatan cinda rabbika wa ma hiya min alzaalimina bi bacid mu ne albuqaatu allati asaabaha alcadaabu hiya albuqaa allati tucrafu alyawm bilbaxri almayit aw buxayratu ñu ne barab bi nga xamante ni fa la bi amoon xew-xew bu màgg bi nee na barab boobu la ñuy wax moom la ñuy tuddee léegi baxrul mayit am ñu koy tuddee itam buxayratu luut waaw ñu ne géej googu nag musul woon am ci xew-xew bii nag bi suuf si yëngatoo ci la baxrul mayit boobu am ñu ne am na lu ñu mën a jële ci histoire bii di histoire yonent yàlla Lut moo di ne yàlla mu ngi moytandikuloo nit ñi ak ngóor jigéen ndax baaxul ndax mu ngi bokk ci jikko yi gën a ñaaw jikko yi gën a bon jikko yi nga xamante ni ak nite daf ko sib daf ko ñaawlu te itam jikko boobu nee na ak yàqu ci nit ki feebar la itam ci nit ki waaw nee na société bu mu am société boobu société bu bon la waaw ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekkee nit ki dafa dem ba nekk góor jigéen bu boobaa rab a ko gën waaw ndax ak ngóor jigéen rab ruus na ko te du ko def ba mukk waaw kenn doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu góor yu sëy mukk amul waaw xaj yi sax duñu ko def mu ne kon nag yàlla bind nit ak la mu def ci moom terale ko xel ak ni xel selleek ni mu baaxe waaw waaye nit ki yàq boppam ba dem ba say ak góor di ko gënal say ak jigéen loolu ñaaw la moo tax alquran bàyyi na xel crime boobu ñaawteef boobu alquran bàyyi na ko xel jox na ko itam importance bu nga xam ne tax na jéebaane na ko ci biir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ŋàññ na ko ci barab yu bari waaw moo tax alquran melal na waa kër luut ci melokaan yu ñu ñi melokaan yu ñu sib melokaan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yàlla melal na waa kër luut ñi ci ne ñoom ay noonu yàlla leen ci aaya bi mu wax ni atatuuna dukraana min alaalamin wa tadaruuna maa xalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aaduun yàlla ne qawmun aaduun mu ne waa kër Luut ña daal samay noon lanu waaw ndax dañoo jalgati sama luwa waaw mu ne ñoom jalgati nanu sharia bi ma tëral fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yàq valeur yooyu waaw nee na mujj na nekk nee na ay saay-saay yoo xamante ni nuur nañu cig mooy nee na ba kenn mënatu leen caa wàññi ndax yàq nañu seen bopp waaw parce que ni nit di nuure ci drogue ba mënatu ko bàyyi waaw noonu itam la nit di nuure ci ngóor jigéen ba dootu ko mën a tee bàyyi mu ne wasafahum allahu bil jahl yàlla melal na leen sax cig réer nee na waa kër loot ñi dañu réer waaw kon képp ku ko xamante ni góor jigéen nga noonu yàlla nga képp ku nga xamante ni itam góor jigéen nga ku réer nga waaw ndax yàlla wax na ni innakum la tatuuna rijaala shahwatan min duni nisaai bal antum xaw qawmun tajhaloon kon képp ku nga xamante ni waaw mën na la ba loolu di sa jikko ku réer nga waaw te nit moom bu réeree rek mu ngi ci lëndëm waaw al ilmu nuurun wal jahalatu xalak man aacha fi zulmatil jahli halak waaw waykat ba nee na xam-xam leer la réer la ku dund ci lëndëmuk réer alku wal jahlu yashmulu al jahl alladi huwa diddu al ilm kama yashmulu al jahl alladi bi maana safa wa taysh والسفيه الطاشي طائش لا يترك له la لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه ñu ne réer mooy safaanu xam-xam nee na itam nit bu demee ba réer dafay daal di nekk dof nee te dof nag kenn du ko bàyyi muy taxawaalu ci mbedd mi dañ ko war a tëj waaw kon jigéen ñi dañ leen waroon a yar tëj leen waaw walla ñu rey leen parce que loolu mooy li nga xamante ni moom la chariatul islamiya digle wasafahum allahu bi israaf yàlla tuddee na leen itam ay yàqkat waaw nee na góor jigéen boo gis yàqkat la waaw innakum la tatuuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun musrifuun waaw yàlla tuddee na góor jigéen ñi ay yàqkat ay asrafu fi shahawaat wa fi tajaawudi alxududi allati rasamaha allahu li cibaadihi walmusrifuuna hum quranaau alshaytaan alladina yufsiduuna mujtamacahum fa yajibu alwuquuf fi wujuhihim walxuul duuna israfihim mu ne ñoom dem nañu ba yàqu ci plaisir waaw yàq nañu seen bopp yàq seen yaram ci plaisir jéggi nañu dayo lool ci yàqu googule te dem nañ ba nga xamante ni fitra bi leen yàlla bindee yàq nanu fitra boobu nee na kon ay yàqkat lañu waaw waaw ndax yàlla bu bindee góor waaw pour jigéen nga dem ba yow góor gi balaa nga am plaisir waaw fokk nga jëlee ko ci góor ni yow yàq nga sa bopp niki noonu itam jigéen ji nga xam ne yàlla def ko bind pour góor bu demee ba nga xamante ni balaa am plaisir balaa am bànneex fokk mu amee ko ci jigéen ni moom kooku itam yàq na boppam kon góor jigéen ñi ay yàqkat lanu yàlla leen ko tuddee moo tax ñu ne yàqkat yépp ay àndandoo seytaane lañu njabootu seytaane lañu waaw ñoom yàq nañu seeni pénc yàq nañu seeni société kon nag war na ci ñoom ñu arrêté leen téye leen fexe ba yàq gi ñu dëkkee ñu dañ ci ndax bu ñu leen bàyyee rek yàq gi mën naa law moo tax gis nañu ne alquran ñaawlu na ko wante nag yàqu-yàqu jamono dem na ba léegi nit ñi dem na nañu bay ne dañuy wut liberté dañuy wut sañ-sañ waaw pour góor ak góor di mën di sëy di takkante waaw loolu képp koo xamante ni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi daa dégg ni am na ay nit ay jëmm yu nga xamante ni wala ay réew yu nga xamante ni loolu xew na fa ay nit ñuy jóg di manifester di wax ne góor ak góor dañu war a sëy waaw waaye loolu bu mu leen jaaxal xewoon na ci dëkk boobu ñuy wax sa doom waaye seen mujj rafetul woon ndax dañoo mujj ñoom ñépp yàlla alak leen moo tax ñu ne am na lor gu ci nekk waaw am na lor gu ci nekk ndax ak góor jigéen dana indi feebar yu bon ci société bi waaw feebar yu nga xam ne euh, ku dem ci ñi nga xamante ni xóot nañu ci wàllu messine danañ la ci wax yu nga xamante ni soo ko dee def dana tax nga daw su fekkente ni euh, bëgg nga sa bopp bu fekkente ni itam bëgg nga am ak wér ci sa yaram waaw ay musiba yu baree ngi ci waaw jëlale na sax dumay yàlla ëllëg waaye lim lay indil ci xeetu jàngoro yu bon ba wax na ne sax sida bi ñuy coow foofu la jóge walla iyaazu billah yal nañu ci yàlla musal moo tax wa hakada yadharu lana an allaha lam yamur al insana illa bima fihi salaamatuhu wa saadatuhu wa lam yuxarrim ma fihi durru ñu ni fii nag dana fi feeñ lool ni bëccëg ne yàlla digalul nit ci lu dul loo xam ne noflaayam a nga ca jàmmam mu nga ca waaw loolu yàlla digal nit ki rekk dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ci waaw lépp lum la tere nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ci moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ñi na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngóor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna danañuy dem ba am vise boobu waaw waaw sëy ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sëy ak moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ni leen sañ ngeen bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadam ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu seytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaaukum xarsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngóor jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la la mu la teg mooy ñu yar la moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku euh, xadis dikk na ci moo tax ñu ne inda al islaam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dahaba baadu al ulama ila anna laait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne lislaam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci boroom xam-xam yi wax nañu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam euh, ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imaam Shafii ak Ahmad ibnu Hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax wax nañ jële ci Abdullah ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne yonent bi nee na man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi luut faqtulu lfaaila bi waaw Abdullah ibnu Abbas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa na képp ku ngeen fekk muy def nee na ak ngóor jigéen nee na na ngeen rey ka ko def ak kañu koy def waaw moo tax Abu Xanifa wax na yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom nee na góor jigéen daal dañ ko war a yóbbu ba ci montagne bu kawe nee na ñu bëmax ko ba pare nee na tofal ci ay xeer di ko ko sànni ba ba muy àgg ci suuf waaw waaw moo tax ak ngóor jigéen bon waaw nee na ndax euh, lu jiitu ñuy rey waa dëkk boobule di waa kër Luut ña dañ leen a sànni ay xeer asamaan si di tawi xeer di leen ko sànni ba ñu faatu ñu wëlbati suuf si seen kaw mu ne kon nag moom imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen daal dañu ko war a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer kon tabaarakallaahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonent yàlla lóot yonent yàlla lóot nit ku baax la woon ñu yebaloon ko Sadum pour mbonte ga ñu nekk mu génnee leen ci ba ñu bañee itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyaam moo gën a metti kon képp ku ko dëkkee itam nanga nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yal nay bokk wàccuwaay tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop